amis auditeurs de la rajo Rewmi FM nuyu nañu leen sant nañu leen ci teewlu gi amaan mbégte l'équipe de la de l'émission Rewmi pipol ñëwaat na tey ci samedi ji yemboog fanweeri fan ci weeru mai atum 2020 ñu amaan mbégte kon dikkaat ci suñu yëf li nu mëne di wàllum pipol man ak sama binom sama xarit waaye laata ma kaa jox ma nuyoo mbokk yi dañ leen di ziyaare bu baax baalu leen ak ndax chaque samedi ñu toog di wax wala ñu toog fa invité du ñàkk ñu wax fi loo xamante ni xeebu na nit moo mel noon ñu ciy jégalu bu baax a baax bu fekkente ne ni mës nañ fee wax loo xamante ni. waxuwul ñu ngi ciy jégalu bu baax euh, di leen ziar di ñaan tamit euh, Sénégal yàlla gën fee wàccee jàmm di nga xamante ni jamono yi moo ñu sonal huit di mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee donc euh, xéewal gi saawaan baawaan ci sunum réew ndee loolu la ñu xam donc yàlla na yàlla yónnee jàmm ji li maa ngi lay ziar yow itam di la baalu àq bu wér. waaw di la baal àq mi mi di baalu auditeur auditeurs ak auditrices bu réew mi FM rawatina réew mi people. Mm-hmm. di leen wax euh, ci korite gi ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax bu fekkee wax nañ fii lu ñuy xeebee. Mm-hmm. ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax lépp defar rek la woon. xam nga tey nag ñu ngi dikkaat fas yéene waat démarré waat seen émission bii di. réew mi people. Mhm. di wax ni gars yi namoon nañ leen donte benn semaine su ma juumul lan manqué. waaw di semaine passée semaine passée. semaine da nga amoon intoxication alimentaire. topp lekk gi rek la demee nag. <laughs> alors on en profite aussi pour faire un gros coucou à ma rédaction à la direction du groupe Promo Consulting. ñu ngi ziyaare du baalu àq bu baax ki nga xamante ne mooy suñu big boss El Hadji Mbagnick Diop président maa ngi lay nuyu man namu naa la fu ne maa ngi la fay laaj xam naa dinaa jël si sama ndewanal madame Sané je te fais aussi un gros câlin sama yaay sama goro alors euh, c'est sur ces mots kon la ñuy entamer li nga xamante ne mooy suñu round up des faits people yow da ngay bëggee. damay bëggee am ni Moustapha Diop <laughs> <laughs> ku nekk ak sa DG. Uh-huh. yow président Mbagnick ak ñoom madame Sané man uh-huh. am ni Moustapha Diop mooy sama DG. ak ñoom zil technicien ñoom jaawa ak ñooñu. Mm-hmm. bëgg naa leen bu baax a baax. d'accord am na Moustapha Diop tam sama boos la de. ah suñu xarit la <laughs> donc yàlla na jàmm yàgg comme ji ni ma ko doon waxee kon dañuy dugg léegi suñu round up des faits people mm-hmm. lu def wax nag lu ay di njàbbat semaine bi yëpp wàllum euh, vidéo ay xale yoo xamante ni dañoo nekk jullit ñu baax ñi ah dañoo nekkoon ci wàllum julli ñoom ñu nekk ci li nga xamante ni bon xëy na hmm, jur na coow mooy wàllum proxénétisme ak affaire sex tape donc euh, ñaari zone ñoo xamante ni instant yi ñu ngi naan fii la ñu ngi naan du fii euh, waa Mixta jóg nañ gis nañ seen intervention nee nañu leur cité n'est pas une cité pourrie donc affaire bi ameewul foofu balañ cee ñu bëgg buñ ci bëggee am lu ñu gën a leer dañ ci jokkoo ak ji. lan nga ci lan nga ñu ci mën a expliquer. Euh, Mimi waaw waaw Mixa nee nañ du foofu wax nañ dëgg. du foofu nee nañ mariste la. waaw parce que man Mixa def naa fa deux ans. Euh, comme femme bi doon expliquer un jour rek li mu wax ci ci ci ci dëkkuwaayu mixa yi. Mhm. noonu la demee par appartement la si appartement bu ci nekk nun ko tabaxee ak yeneen yi ñoo njuróo. Mhm. boo seetaanee vidéo yi da xam ni yow mi xam mixa da xam ni fii du mixa même bu amee changement sax ak euh, plan bi nu ko tabaxee da nga xam ne fii du moom. loolu maris la xewee maris la xewee sa vidéo yi tamit nekkul benn ñaar la. Mm-hmm. Euh, donte dañ ko collé. am na sax yeneen vidéo sax yu nu si monté fin bi vidéo yi du Sénégal. Mm-hmm. ah bon yi du Sénégal vidéo yi dañ ko jël si site internet bi ay vidéo peut-être yeneen dëkk la si Afrique bi ñu indi ko monté ko si pour gën a garaawal affaire bi. di wax ni booy yi ay sénégalais la na euh, benn booy bi mi ngi dëkk parcelle booy bu mhm. xees bi parcelle la dëkk am na sax temps yee si ginnaaw ñu ngi doon wax dafa xaroom xaruwul mhm. euh, ma mani bu xaroo tamit ñaari bàkkaar la rek mhm. dèjà yow mënoo nekk xale bu ndaw euh, nekk ak say say morom di ko filmer ba sit internet yi jot ko ba àdduna yëpp di ko ngawte ŋawte waxatuñu loolu pareeguñ ci loolu yow nga ni da ngay xaru dèjà yaa ngi indilaat sa bopp beneen problème indil sa famille beneen problème di wax ni genre affaire yii nii peut-être booy yi ñoo feeñ le mm-hmm. mais mi ngi fi am ba tey jii nii nii samedi bu tey bii may wax ak yow. d'accord mais ji wax ji mooy léegi affaire sexualité ak affaire ñeme di def loo xamante ni xëj na ci ay jamono yu weesu adulte yi lañ ko gën a xamee woon mais léegi ay xale de 14 ans euh, euh, des bébés je dirais ñoom ñooy adonné wu ci se faits là qu'est-ce qui se passe dans ce pays. booy di wax mujjee juddu gën a baax. Euh, mooy booy nouvelle génération 2000 bi. te léegi nekk di def wàllum sexualité di vidéo sa bopp à quelle fin. booy booy booy boo ci gis téléphone am kotam moom rek nga ko xam. seen waajur yi duñ ko xam ndax xam nañ ni seen waajur yi bu ñu xamee seen code téléphone ba ibbi ko dinañ ci gis lu leen bett. Mm-hmm. te booy danoo xamul téléphone. réseaux sociaux lañ xamul gis nga am na téléphone yoo xam ne mun nga supprimer. si si vidéo bi si galerie bi. mu dem corbe. Mhm. nga supprimer waat ko si corbe bi. boo dugaatee si carte bi. soo dugaatee si mémoire téléphone bi am fu ñu ko conserver denc ko fa. Mhm. foofu nag la booy dul nànd. Mhm. mun nga jël téléphone bi mu am problème nga jaax jox ko defar ko téléphone bi jël ko jaay la. wala ngay dem dugalante ko padoa ñu jël ko. dugal ko seen machine di ko pawte pawte ba mu law ba yegg si kocc mais mais euh, lan moo tax ñu yegg si fii tey c'est ça ma question. voilà lu tax ñu yegg si fii tey gis nga mimi bu njëkk ba boo xoolee peut-être mi ngi daan am mais bëreewul woon nii mais bu nan nan jàpp ne tamit boobu internet amul woon comme nii. Mm-hmm. mais comme internet jamono bi am na ku si nekk yaa ngee sa téléphone sa téléphone ngay seetaanee sax tele mm-hmm. léegi booy raar na ñuy toog sax si saal bi naan ñu ngi seetaanandoo famille bi ku si nekk mu ngi sa téléphone sëgg li sa waajur di seetaan yaa ngi koy seetaan sa téléphone di lijjantiwaat leneen. te léegi booy léegi lu ñu def dañ koy photo denc ko bu ñuy sangu dañ koy photo mm-hmm. lépp lu ñuy def dañ koy photo xam léegi nag loolu noonu ñuy bàyyi seen téléphone yi après mooy rëcc gis nga mimi booy sañ guru sañ. man moo ma jaaxale dañoo jaaxal ñëpp te booy yi def 2000 lañ judd. Mm-hmm. seetlul booy di def nii yëpp. mais avec d'une précocité extraordinaire. et di man damay dégg yenn gars yi naan ay ci parent yi la ndeysaan du ci parent yi. ndax parents yi duñ yëg lu xew. Mm-hmm. sa doom tey dangay nekk ak moom si kër gi mu jékki-jékki saa yollee ko génn wala mu tàggu la ni la maa ngi dem sama kër. wala mu nekk ci kër gi sax. di def yoo xamante di def yoo xamante yow yaa ngi si kër gi sa doo ci xam dara. Mhm. wala mu tàggu la maa ngi dem kër taan mimi. nga ni ko bàyyi nga ni ko waaw Franc fa la jëm de mais balaa muy dem jàdd na toj dëkk bi dem kër taan mimi. Mhm. def fa benn 30 minutes njibbi siwaat nga yaakaar ni kër taan mimi la yendu. Mhm. fekk yendu fa jaar na fenn toj fu muy toj ñëwaat loolu nag lan la si waajur yi mën. na waar. moo tax booy yi nii nouvelle génération bi nii éducation bi. bu ko kenn jiiñ famille bi mais mbedd mi moo leen éduqué. Mhm. tey àndandoo yu bon. ndax tey fii pour nga am àndandoo jë bu baax jamono bii si 2021 bii ñu nekk nii 2020 bi ñu nekk nii. Mhm. problème la moo tax ñu mucc mooy ñi nga xamante ni tey juddu nañu année 60 yi wala avant loolu wala avant loolu wàcc ba 2000 ba 89. Mhm. jàpp 90 mais à partir de 90 wàcc ba 2020 non saa yi gisagoo dara. Mhm. ngiroo ñoom aana yi gisoon nañ ko fi. maa ngi jokkoog tam ak imam Kanté. Mm. c'est l'imam ratib du point E. moom nee na euh, bon. foisonnement maanaam léegi résidence ak auberge yi ni mu bëree moo tax ñuy assister à à à ce phénomène. gis nga auberge yi mun na bëri sax sa euh, sa phénomène yi mooy loolu parce que tey jii mun naa jóge Dakar dem Tambacounda aw ma foofu mbokk. Mm-hmm. su ma demee auberge rek laa mën a luyee mun naa fa luyee fanaan fa benn 24 heures après jug lijjanti lu may lijjanti seeyaat njëbi mhm. mais léegi gis nga kon tax a jóg du lii. du du lii. Mhm. mais léegi lii la ko booy def pour ñoom auberge léegi sax da ngay dugg sax auberge di tiit. Mhm. ndaxte yow waa koñ bi bu la gisee rek ñi ngi naan i Mimi de dugg na obel c'est pourtant peut-être Mimi dafa am lu mu waroon liggéey dugg fa pour mën a am conscience tranquille pour mën a dalal yaramam mhm. mën a toog liggéey concentré si joobam mhm. mais léegi da ngay dugg auberge sax ñu dëkkal la fi nga dëkkul léegi turu auberge mooy yàqu mhm. ak hôtel ak chambre yu ñuy luyee léegi nag gars yi appartement yi sax léegi dañ koy luyee da ngay gis ku jël appartement du fa dëkk moom moom mooy fay appartement bi sax weer de mais pour jox ko copain bu mel ni jiili jiili di wut ay client client yi ñëw di bëggee foofu fay ko journée quinze mille wala vingt mille dem. Mhm. balaa weer bi di dee danañ récolter xaalis bu bëri. business boobu la gars yi di def jamono bi mhm. da ngay am sa gel doo am foo benn jili alors jili bàyyi sa chambre fa nekk nga ni ko kenn. mun la waaye man de dama amoon rey bu dee nga ni ko waa mais ñaata indi. jur rey mu dee mooy bu dee mooy jàpp sàcc. <laughs> mooy am benn booy boo xamante ni tàng tàng bi da ko war a defaral. Mhm. xam nga jamono bi loolu la booy di sax gel keneen di mooy loolu. Mhm. te pourtant yow la bëgg. parce que jamono bi moo dem ba toll foofu mimi. Mhm. kenn xamatul ban réew la ñu nekk Sénégal. Mhm. booy léegi sañ nan booy capable nan booy ragalatuñ dara. foo nante si mbedd sax léegi da nga koy gis. sa ay temps man waxtaan naag benn paa yàggul dara paa bi nii ma booy yéen ñi xam nga lu tax wératoo leen ma ni ko ah mu ne ma gis nga ñun suñu temps bu ñu daan gis pooju nit sax. dañ daan am problème. fu nu toog balaa ñu fay jógee dinañ fa def 30 minutes parce que liñ ëmb du gaaw wàcc. mais yéen da ngeen gis loolu gis loolu gis lu gën a garaaw loolu dem ba gis sax li nëbbu si ku jigéen ki mm-hmm. yooyu da ngeen ko dem ba miis moo tax bu ngeen gisatee sax jigéen def si bu neen du ngeen am réaction du leen def dara. c'est moo tax yenn viol yi may dégg sax ñu naan am na fi am na fi pour man sax amu fi. Mm-hmm. yéen du ngeen violé. suñu temps la viol yi gënoon bëri parce que boobu da ngay gis pooj rek naaw si kaw jigéen ndax loolu lu jafe la woon. c'est ça xam nga léegi mi mi dëkk bi doo comprendre quoi mais yàlla na yàlla sàmm rek en tout cas. am doom jamono bii ñu muy neexul de. ku ku am doom kay nelawatoo rawatina bu jigéen. wallaahi mais il faut dire que cette histoire aussi est différente de de celle de Rangou. parce que Rangou tam jamono yi euh, donc euh, elle est entre les mains de la police depuis ce mercredi l'on selon le site donc euh, selon des sites d'information rawatina wàllum people nee nañu l'ex animatrice de la Sen TV Rangou est entre les mains de la police depuis mercredi passé de son Nour Ramatoulaye Barry. Elle a été arrêtée par les éléments de la DIC au même titre que le gérant du Ngor Timis et 12 de ses invités. Apparemment kon moom dafa amoon benn site boo xamante ni dafa doon dérouler wàllum pornographie ça aussi c'est ça fait partie des actualités phares de de, la semaine. Euh, Rango moom moo am site. Mhm. waaw Rango xam nga nag li ko gën a raakaajuloo <laughs> li doon def. sénégalais yëpp. t'as pas envie de te demander rango ana ay mbokkam. Euh, danaa si ñëw arrêté woon na lu mu doon def ba sénégalais yëpp ndeysaan doon ko ci félicité. Mm-hmm. mu defoon fi muuraay bu rëy. toog di demander pardon à. <laughs> xaritam bi. donte baalu boobu sax baalu. donte Mama Targué donte baalu boobu sax baalu léeboon ak léppoon la mais toogoon na benn temps dégguñu ko woon mu yëngu. ñu jeg jeg a gis benn nigérienne. bu tudd Dior. Dior def vidéo waaw après ñëpp sénégalais yëpp taxaw naan mais ana rangu ana rangu kon da doon bandi bandilu ana rangu fu mu nekk. gisee jikko hypocrite boobu noonu Mimi. Mhm. yow tey yéen doon kaas di saaga rangu ci li muy def keneen ñëw di ko def ngeen ko ci encouragé di laaj rangu naan ko ndaxte rangu xotteekuwul kii moo gën a xottee. te dafay mel ni ces genres d'événements ça passionne les Sénégalais. ko bëgg. da leen neex li rangu di def nii. Mhm. gaa aalu rek mais ak leen neex jàpp bi ñu ko jàpp nii yeggul si xolu gaay mhm. nu sañoon ñu bàyyi ko mu continuer li mu def. <laughs> ndax boo xoolee rango ay vidéo yu muy def yëm lëmbal ak yii nii nombre de vues yu muy am. Mhm. par rapport ak yi nga xamante ni dañ koy yii mooy dundal nit ñi jamono bii ñu toll mi mi te rangu jàpp biñ ko jàpp léboon ak léppoon la dañ koy bàyyi mu njibi fii Sénégal la tu penses dañ koy bàyyi mhm. lëndi nga dégg njibi wala suba wala tey mais Djily est-ce que est-ce que c'est pas un peu salace d'entendre benn doomu sénégalais bu am site pornographique am na fi ah Kocc Barma sénégalais la mhm. Séné Porno ko moom mhm. am na yeneen site sénégalais yi fi nekk yoo xamante ni ci affaire porno la yoo xëy na rangu lan yëpp rek njëkkee wu ko fii am na ñeneen ñu ko fi njëkkee ñooñ nañ leen lijjanti ba pare soo koy jàpp xale bi nan bàyyi xale bi. nañ ko bàyyi ah? waaw man ànduma ak moom lu muy def nii rafetlu wu ma ko. Mhm. mais bu nu liggéey nag dañ koy teg ci yoon. Mhm. rango am na ñu ko njëkk am site. am na ku na site yoo xamante ni si people lay yëngu. Mhm. ñi ko moom bul comprendre lu ñuy def lan la. n'importe quoi. am na fi benn site benn benn site boo xamante ni si Facebook bi la nekk ci Dakar. mais site boobu noonu tamit saa yi bul comprendre. te du n'importe quoi moo tax mimi gars yi bu ñu demee bay def dara nañ ko teg si yoon rek. Mm-hmm. amul xaaj ak seen. rango peut-être daam bu buñ ko dencal moo tax après ñuy jéem a ñëw di ko sonal nii. Mm-hmm. mais avant ñuy jàpp rango waroon nañ lijjanti ñoom ki moom site prono Sénéprono ki moom yeneen sites yi ba pare ñu soog koy lijjanti moom. Mm-hmm. mais xëy na moom. dafa amul ay mbokk. c'est en tout cas instant elle a main à partir avec la justice soxna Sos di rangu jigéen joo di rangu kon ñu koy bon euh, ñuy souhaiter quand même que tout soit rentré dans l'ordre yàlla na ko yàlla gindi mu génn ci li nga xamante ni yëpp moom la nekk daal di soppeeku pourquoi pas nekk beneen jigéen fonder un foyer avoir des enfants pourquoi pas loolu yëpp xaj na fi. c'est vrai

ak Dieyna ba tey mu ngi wéy ndax instant yi Dieyna Dieyna Baldé ah nekk kook nga xamante ni moo jur doomu Jóob jamono yi nag jël na kàddu moom nee na réccu na bu baax bu sañoon euh, li weesu digganteem ak euh, directeur général de l'ISEC du am ndax moo jur doomam ca it réccu na bu baax bu sañoon sax tey jii bu munoon nekk plainte bim ko plaintoon du am xëj na yëf yaa ngi xeeñaat neex diggante Diop ak euh, ak Dieyna parce que Dieyna sax moom na nee na Diop aimons tout. Euh, ndeysaan bëggal bëggal dafa yéeme Mimi fii lan toogoon man yow. ma ne lii nii ñii fu ñuy mujjee xam nañ ko. ay jégal jégalante li ñu njëkkee nii lan war li li ñu njëkkee nii waruñu ko woon sax def. ay plainte waruñ ci woon mënoon nañ ko lijjanti seen biir sa du yéeg kaw. lu leen may sens nag mooy dafa tombel korona bi yegsi uh-huh. seen cool yi fay mais kon ba tey moom la ñuy ngawte ngawte jéy naa ay mbokkam soloon nañ ko ruuxoo uh-huh. ñu dal si kaw paa bi uh-huh. donte ñu wàññi ay atu Zeyna naa nee naa vingt ans la am dañu wàññi ay atam defal ko dix-sept ans nga amee pit ñi ko jege ñi ko xam ñoo la waral booy bi vingt ans la am dama am ay auditeur fu ne Mm-hmm. gars fu ne la may béggee ay information fu ne lay dalee bëri na ay information yi fiy dégg ba ma koy jot du tey mais doo ci wax mm-hmm. da ngay bàyyi ba mu yegg ci nga soog ciy wax mm-hmm. sinon mu nga ci wax leneen xew ci donte yàgg-yàgg day ñëw jéynaa mook Diop rek seen problème mooy li ma la si waxoon rek mënoon nañ ko rek régler neneen lu dul presse di si jot Jeyna naa woon téeñal paa bi Jeyna dafa nopp paa tiiñal ci presse bi àdduna paa bi kilifa la. Mhm. paa bi kilifa la. am ay soppe di dimbali ay doomu jàmbur. Mhm. jëlal jëy naa appartement bi mu ko jëlalee appartement ay mbokkam waxuñu dara jëy naa. fii mhm. laa la ko lu tax mu jëlal ko appartement ay at mbokk jëy naa benn ndijaayam dëkkul ak moom benn tàntaam dëkkul ak moom ñu bàyyi ko booy bi kese dëkk appartement kon ñoom xam na ni paa bi mi ngi fay jaar di faj soxlaam mais dañ ko ndëpp ndëppaloon. <laughs> bàyyi ko si biir ba mu am ba mu ëmb ñu ne dañuy jéem a am ci héritage paa bi far yàqal seen bopp même bu fekkee paa bi jéggal na ko sax la mu amoon ci paa bi dootu ko amati parce que gars yi dañ ko doon jéem a dóor. paa ko. Mm-hmm. ma bu fekkee. jëy naa ñu fàttali ne nag ba léegi moom mu ci kaso bi. Jóob moom laa wax man la bu fekkee jëy naa 17 wax la am paa bi dañ ko war a tëj li ñuy tëj ci viol. Mm-hmm. amul kilifa la amul di kilifa mais bu fekkee vingt la am nañ bàyyi paax bi mujj bi mm-hmm. li mu def moog booy bee ci ànd neex na booy bi d'accord xam nga mm-hmm. dañ bàyyi paax bi mujj bi mi ngi baalu yow mënoo tëjlu sa moroomu maam wala sa moroomu baay ba heure bii nga ni da ngay baalu pour mu jéggal la mun na ko jéggal mais bu doon maay paa na toog ma toog sama doom man naa ko gérer. gérer ko waaw. doom ji Bougazelli la ko tuddee ah. loolu la ñu wax. Bougazelli la ko paa bi tuddee <laughs> loolu rafet na. naas <laughs> na kay ñu wax ci ki nga xamante ne mooy borom VIP people Tange Tandian moom tamit jamono yi il est donc euh, euh dans des mm, mêlées judiciaires ak euh, ki nga xamante ni dafa entamé kon euh, procédure judiciaire ak ki nga xamante ni mooy Ouzin Keita apparemment Tange Tandian daf ko porté plante ndax ay wax yoo xamante ni ndax benn vidéo benn audio buy circuler comme quoi Ouzin Keita état dafa dafa dafa accuser Tange Tandian le patron de VIP People euh, de euh, borom ñaari tur yi léegi nag euh, am na ñu bëri ñuy wax ni Tange en ce moment dañuy monter benn cabale contre lui parce que nekk na koo xamante ni dafay dénoncer yu bëri te li yëpp li ko indi mooy li mu waxoon ci wàllum drogue bi gannaaw bi euh, coow amee ñeel fii sa papa yi nga xamante ni ci débu début couvre-feu bi ñoo ko viole woon nekk aux Almadies ba li fa xewoon euh, xew fa donc l'affaire Tange Tandian ak Ouzin Keita en ce moment ça affole la Euh, Tange bu porté plainte Ouzin day tooñ xanaa déglul audio bi. Mhm. ñun bi déglu bi nee nañ montage la. waaw ñun man déglu naa audio bi. Mhm. audio bi Ouzin ba tey. Ouzin voix am la. Ouzin njuróo na parce que nee nañ beneen fii bu tudd Zilda la ci doon conversel. moom laa lay fa laa man déglu naa audio bi. Mhm. bi dafa wax ak Ouzin. bi ba tey mooy wax Ouzin day tontu rek. day bi moo xanaa xamoo ni temps bàyyi ko foofu dafa la. Mm-hmm. moom moom mënul mënul mënulu la dara. ah yaa ko njëkk a jaar fu bon. waaw ni ko yow bi ngeen demee biir si yéen ñaar a nekk mu dëpp la. Mm-hmm. di ko di la def lu ko neex. Mm-hmm. Ousseynou naan ko un waaw. kon moom bu plainte day am kan la war a plainte. gel bi la war a plainte parce que gel bi moom mooy tudd affaire góor jigéenu temps. mais ba tey Ousseynou tudd ko. te li ñuy jiñ te li mu jiñ tans yaa gënoon ko jiñ tans. Mhm. du ci gel bi la njëkkee euh, mun na nekk dañ bëgg a yàq live fu tans. loolu la ñu wax bëggoon def live fu Pape Cheikh Diallo. Mhm. parce que sénégalais bu bëggee yàq sa live fa lay jaar. Mhm. tans li muy liggéey day dérange ju bëri. parce que dafa yor benn site bu am doole euh, di yëngu si people. ku yëgu si people nag dinañ la mës a people. mais nag tans na am mental rek bu fekkee li li bi wax noonu dëgg la ah, moom na génn rek leeral donc la après mu jeex bu fekkee tamit du dëgg na génn na du dëgg moo ndaay preuve loolu kese la. Mhm. man du ma ko tuumaal parce que ah ngan googu de ñuru na ma réel. Mhm. taas mhm. donte xees na gaa ñi ngi naan daa xeesal loolu man amaluma solo. njuru na ma réel ñu ma koy gisee selon comportement am ak waxinam. bu fekkee moom la na taxaw. publiquement comme ni ko kaana yi di defee ak tubaab mais lu tax muy assumer lii c'est sa vie privée. waaw mun na nekk vie privée mun na bàyyi mu sedd tamit. Mhm. yoonu sénégalais yi nekk dundam la. Mhm. mun na ni loolu duma ci wax. mais seulement Tange dafa nekk koo xamante ni il tout le temps sur la vie des gens. waaw ku nekk si dundu nekk sa dund un si gars yi dinañ la bind un jour. Mhm. ak koo mënti doon. buñ ko bindee moom jaru muy plainte moom ñi mu jot a bindal sa nekk ñu est-ce que xam nga ni Pape Saint Diallo. tey daram bu demee ba toll fi mu yàqu woon ay temps. avant muy defaru nii nii. distance bokk na ci. ah bon. du ah leer laa bokk na ci ñu ko doon bindal loolu. Mhm. kon moom bu ko bindalee loolu na assumé rek. Mhm. ci lay yëngu wax ci nit ñi bu ñu ko bindalee moom it na rek. na xam ni moom day wax ci nit ñi dinañ wax ci moom. Mhm. xaw ma nag lu ñu wax dëgg la wala du dëgg. da ko rek. d'accord en tout cas Tange notre grand ami la ah. ñu ngi lay ñaanal lii yëpp waaw waaw te bu baax la nag. très franchement. ñun bu nu toogee di job dañuy liggéey ñun ay kaana la. Mm-hmm. bu nu waree job dañuy job. Mm-hmm. nekkal sama meilleur ami. Mm-hmm. su ma su ma gisee loo xamante ni dañ ko war a wax. mu war a jug ci kaw dañ kay wax. ndax man tey moo fi defoon n'importe quoi moom bu si jotee da koy bind. bien sûr. animateur bu nekk ci Rewmi FM nekkoo animateur bu ndaw animateur bu mag nga célèbre nga. Rewmi FM rajo bu mag la tey ku fi def yow mi boo fi defee n'importe quoi da koy bind. kon moom bu defee n'importe quoi ñuy dégg ñu koy dégg boog ay rumeur. Mhm. dañ ciy wax. Mhm. ak ku doon nag. Mhm. noonu la demee. na génn assumer responsabilité am plainte boobu bu fekkee da koy def bu plainte Ouzin tooñ gel bi la war a plainte. Ah bon Tange ñu lay ñaanal nag li yëpp rentrer dans l'ordre suñu grand boobu borom VIP people. Euh, ndax kat suñu information yu bëri fa lañ koy jëlee ah il a un grand site et macha allah c'est c'est de la maison alors euh, Bijou Ngoné yëg nga ni am na am na jëkkër pour une troisième fois il est devenu madame Ndao. yàlla toog ci sëy bi. bii en tout cas commentaire yi ci ci réseaux sociaux yi bëri na torop xale yu yabaatee ñu ngi ko naan tata dootuñ la souhaité heureux dañoo sonn na nga toog ci sëy bi. xam naa bii baa fi toog trois fois moom. ah bu ñeentee dina doy waar de dëgg yàlla. en tout cas. na maytu li dal bi bi dal ko rek. na may li dal ka bi bi dal ko. Mm. na maytu tas bëri li tax muy tas nag xamuñu ko mun na dem ba si biir xam nga jigéen mun nga nekk star. Mm-hmm. sëy sax quatre fois tas. Mm-hmm. gaa yi jàpp ni yaa bëggul sëy fekk bëgg nga sëy mais da nga tasegul ak góor bu la comprendre. nekk star jigéen boole kook sëy ji est yaakaar nga ni yomb na. yombul. parce que milieu bi la. jëkkër bu la comprendre rek nga mën a am wala jëkkër bi nga bokkal millier mais boo amul jëkkër bu nga bokkal millier boo moytul dina la génnee dina la bëgg a génnee si milieu bi. te yow milieu bi si ngay teddee. boo amee jëkkër mu bëgg la ci génnee sa si ngay teddee. da ngay bañ après lu muy mujje seen say tas nga dem mu dem. gis naa fi ay artistes yoo xamante ni noonu la demee dañuy am ay jëkkër yu baax ñoom artistes yi dañuy baax dañuy am envie sëy mais seen jëkkër moo leen dul comprendre parce que milieu bi nekk dañuy naan yaakaar ni dañuy dem di doxi lu leen neex fekk doxewu lu leen neex mais seen liggéey moo ko laaj. d'accord après seen jëkkër moo leen dul comprendre sëy bi di am ay werante après ñu dem. bu ko defee nga ni artiste bi bëggul sëy wala kii bëggul sëy fekk bëgg na sëy. Mhm. mais seen jëkkër ñoo leen comprendre mhm. xëy na tamit moom looloo ko dal rek. mais ñu koy ñaanal jëkkër ji comprendre ko rek. am na solo euh, apparemment c'est une vieille histoire qu'elle a ravivée maanaam copain la woon. Mhm. ñu dund bàyyante mais mujjante gi Madame Ndaw, l'homme qui a conquis le cœur de la belle bijou donc euh, ne personne d'autre ko nami proche de Ibou nee nañ ki ko takk xaritu ab Ibou la nekk euh, borom kër ci aja Diallo alors euh, ba tey ci wàllum sëy la ñuy wax instant yi nag sumbulu moom Mandiaye sek nekkoon fi koppam mën nañoo wax ni war na ko ginnaaw ndax Mandiaye moom instant yi jël na soxna waaye jëlul sumbulu. waaw ma est-ce que tamit copain am la ay rumeur moom mi ngi doon daw ñu ne copain la woon. bëri na torop. waaw man man benn jour dégg naa ma jaay mu ne euh, xaritam la. xaritam waaw dégg naa tamit sumbulu na ma jaay xaritam la. Mhm. li ci biir nag xamuñu ko mais en tout cas maa ngi seetaan benn vidéo bi sumbulu yégee ni ma njaay takk na mi ngi teg benn son ma njaay. Mhm. Euh, maa ngi gis réaction yi mu doon def. mais li nga wax loolu laa jàpp de. Mhm. li nga wax loolu laa jàpp. Mm-hmm. selon nu ma gisee réaction sumbuloo ak nu mu doon doxalee am na lu ñu seqoon. Mm-hmm. ñoom ñaar en tout cas. Mandiaye donc Mandiaye Seck sama doomu baay bi jël soxna on lui un un heureux ménage un foyer heureux avec beaucoup de beaux enfants euh, wàllum Covid 19 ak euh, le maire de Guédiawaye tamit ñu ne dafa am coronavirus loolu tam siti ñëw nañ ci bu baax a baax waaye li nga xamante ni moo ci gën a a moo ci gën a bëri. comme coow mooy chauffeur am nee nañ moo ko wàllu soxnaam soxna si wàllu ko ko madam euh, ay Aïssatou Sall donc euh, mais chauffeur bi nee na euh, moom sopewul fenn virus bi kon xamul fu ko madame bi jëlee ndax au dernier moment sax la dame à au maire moom dafa amoon permis de conduire am di dawalal boppam kon mbir am na ji parce que le maire de Guédiawaye moom il est atteint du coronavirus damay ñëw si sacrifice ba pare après ma ñëw si si si kii si Aliou Sall. sacrifice ba. sacrifier bu muy sacrifier chauffeur bi. <laughs> gis nga ànd ak dañ ak borom doole yombul. Mm-hmm. bëy day ànd ak moromi bëy yi. donte nag ab chauffeur la rek. waaye am bu nu demee ba nga xamante ni problème am na ci kër gi bu amul sens dëgg dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. moom la ñuy tàkk moom la ñuy sacrifier. Mm-hmm. sa gis nga dën ni moom moo ko wàll soxna soxna si wàll ko jëkkër ji. moom nee na mosu ko am soxna si moo doon yor permam di dawal ba am ko. loolu tamit ñaanam sax dafa daw. mais bu amul sens dëgg-dëgg moom la ñuy sacrifier jiñ ko ko ne moom moo ko wàll. et yaakaar nga ne leneen mën na ko cee fekk. dañoo waroon corona jeex na c'est ça mimi bi sénégalais dafa am soxor. Mhm. gis nga Aliou ko. musuma ko gis xamaan ma ko seetaan naa ko ay débat gis naa photoom gis naa vidéo boo ne ko jàq doo gis soxor si moom. Mhm. sax. boo ne ko jàq dangay xam ne nit ku baax la bu dee xam nga nit. dëggantaan parce soxoor day feeñ ba ci kanam. Mhm. Aliou Sall feebar euh, corona dal ko. Mhm. si lu nu wax. Sénégal yëpp. naan sunu àq ko dal. billaay 400000 400000. 400000 yooyu noonu na ma benn sénégalais indil preuve bi ndax Aliou Sall milliards yu ñu koy jiiñ moo ko sàcc wala sàcc ko. Mm-hmm. buñ ma indilee preuve bi rek. ma gëm ni 400000 ku nekk war na war na jox ku nekk 400000 am. Mm-hmm. sa lan mooy sax sunu 400000. Mm-hmm. même bu ko sàccoon xaalis boobu noonu ñu war ko delloo sax duñ jox kenn ku nekk 400000 lan mooy 400000. ñu koy dugalaat ci dëkk bi te Aliou Sall ay rumeur rek ngay dégg de. moo jël moo def moo lii moo laa mais kenn ba tey indiloogul a preuve. comme tey feebar mënu ko dal. Sénégal yëpp taxaw naan. te feebar sax dafa jombul kenn. waaw waaw Sénégal yëpp taxaw di ko ñaanal. ay waa yow xamoon na ni dina la dal parce que dañ ñoo yore suñu xaar suñu àq la dal. Mhm. saal nit la Baay Faal. c'est ça nekk jullit sa yonent bi nee na jullit jullit ay mbokkam. nan ko ñaanal mu wér tane jàmm ah. réew mi lay liggéeyalu gan gu bëgg réew mi la mhm. doo ko dégg si yenn détails yi mhm. gars yi ñooy dal ci kawam rek mais moom raar nga dégg ko mhm. bi ma koy mujjee dégg mu wax kaamil la waat ci yàlla ne moom deful loolu bu doyul jullit sa ñu ne ñun kaamil mooy sunu moom ngay waatee ñu gëm ni li nga wax dëgg la moom mu indi kaamil boobu waat ci kanamu sénégalais yépp nga gis ñenn ñi naan sax du kaamil ab livre la indi bu nu clôturer ak kiiwu kaamil gaay nañ bàyyi seen comédie yi sanu ñaanal ko mu mook soxna si ak ñim fa fekk. amiin amiin sama maire boobu le maire de la ville de Guédiawaye ah, kon euh, ñu koy ñaanal monsieur le maire un propre établissement Alioune Sall bu fekkente ne ni loolee dëgg la yàlla na la yàlla yàlla na yàlla wis si yaram bi ndox mu sedd ak képp koo xamante ni coronavirus bi tëral na la keneen koo xamante ni ji corona bi tëraloon na ko ba mu génn mu ngi mu ngi mu ngi nekk. le Kouthia notre comédien national et international waaye moom nag bi mu bi mu wëree pëlëng ba génn hôpital nee na indi na ay weddi ndax moom nee na je n'ai jamais eu le je n'ai pas le diabète je n'ai jamais fait partie de ces cas graves nee na nit ñi dañ wax dafa diabète dafa nangam ci cas grave yi la bokk moom nag nee na sénégalais nañu bàyyi di waxal nit lu ñu xamul moom weddi na lépp loo xamante ni tegoon nañ ko ci dara ba mu tëddee l'hôpital. Sénégalais loolu la doon wax ay daa jabet dafa lii dafa laa mi ngi urgence. Mhm. soo dégg ñu fenn fu ministre bi waxee ni Kouthia mi urgence wala mooy loolu. mais du ko wax mais du ko wax. dégg daal ñu ne ñii ñi urgence rek ñu boole si Kouthia. Mhm. lu tax ñuy seytaamu Kouthia lu tax ñu bëgg Kouthia dem urgence. Mhm. ak lan dox lu tax ñu bëgg ko jabet loo for force. te ba pare gaa yi doon xalaat dee ndaxte dañ doon wax dafa jabet sa corona ku jabet dalay rey. Mhm. gis nga yooyu amuñu xam-xam si corona bëgg ci werante mais loolu yëpp li ko indi tamit mooy eh, ñi nga xamante ni eh, ministère bi. Mhm. ak yi ñu ngi liggéeyal. gis nga mimi ñooñu war nañ xoolaat seen communication. Mhm. lan mooy cas communautaire fii lan moo fi nekkul kaa communautaire ak ay ay contact loo fi gis kaa communautaire la. siin la jógee di wàcc même ba mu xewee siin sax di wàcc ay cas communautaire cas contact ak cas transport yooyu lan war a jël teg ko nële. Mhm. ay cas communautaire nanu wax sàngami cas moo fi am. Mhm. jarutul sax di cité ay lieu la am ba ay maytu di daw di fa am. nan mhm. ni Sénégal tey am na quatre-vingt-dix cas positifs. vingt wér nañ guérir dem nañ jibi cinq ñi ngi urgence kacang kacang jeex na. loolu lu ko gën. cinq cas communautaire Grand Yoff ñaar Touba ñett Parcelles ngay daw yow boo doon ñëw Grand Yoff am fi soxla dootoo dikkati. Mhm. nga feebar xoolal ni ñuy jël see malade yi. Mhm. ambulance bi day taxaw gars yi jé film comédien. Mhm. gars yi daw kër ga. dangay ngay wér sax njëbbi si ñu lay maytu. c'est ba pare mu bëri ay cas yoo ni dañ ko créé sa amul. mu bëri ñu nu rey sa Covid bi dee reyu leen. la si na gars yi di di wax li am quoi sa bàyyi léeb ak nag bi dafa bëri ay mooy loolu quoi mimi moo tax feebar bi sénégalais yi waaw moo tax sénégalais yi gëmu gëmuñu feebar bi cent pour cent léegi da ngay dox ci dëkk bi taxutoon masque waaw da ngay gis da ngay sentir un un certain relâchement nit ñi ni ñu jële woon masque kii da ngay gis sax léegi ku jëkk léegi ne nii masque am naan naan je je m'étouffe waaw mm-hmm. gis nañ ministre bu ko fi def de. Mhm. mais gars si ci boppam ñoom ñoo gëmatul affaire bi. Mhm. la gars yi doon dundee démb ñu ngi ko delloowaat. les gars yi xoolal nañ daan ndaje yeeg mbëkkante yeeg waxtaan yeeg. di sànq raxas loxo yeeg yëpp gars yi wàññi noonu ko. c'est vrai xam waat na euh, état d'urgence bi un mois. Mhm. yaa ngi koy prolongé chaque jour un mois. feebar bi di gën di yokk ngir yàlla doo changer méthode nga teggil nit ñi ñu dem liggéey. Mm. def ni président Brésil bu wax dem leen liggéey. jël seen disposition. Mhm. bu tëj nit ñi ba kañ mi mi. Mhm. Ah. d'accord mais ji même site people yi ñëwaat nañ bu baax tam ci phénomène bi nga xamante ni moo commencé am maanaam ni dafay génn àdduna ci wàllum Covid 19 ñu bugg ko denc nit ñi taxaw ne ñet duñ ko fi donc parce que kii fii fii kii Covid 19 moo ko rey mais on est où là. denc Covid 19. lan moo ci ne. moo jaaxal ñëpp. dafa jaabul wala lan. Mhm. mais dee ci Covid 19 ak dee ci siburu benn la. Mhm. man mu amoon mbokk ñaanu ma ko yàlla mu dee ci Covid 19 ñu ne duñ ko suul sama bakkan mooy dem mais dinañ ko suul. Mhm. nan ma rey mais dinañ ko suul for force ndax moom moomu ñu armeel armeel armeelu yàlla la. léegi loolu la gars yi xawal ku Covid boo dee. duñ la suul da di naan duñ ko suul fii. mais ñoom ñoom mu armeel yi. ba naan kii moo fi suul ak duñ fi suul kii. moo tax ma ni Sénégal xol yi fii boolewuñ ko mu doon benn lii nii du fi gaaw a jógee danoo soxorante suñu biir. Mm-hmm. yéenewuñ kenn jàmm. da ngay feebar ñibbi si ñu lay daw. Mm-hmm. nga feebar dee ñu ne duñ la suul loolooy lan. Mm-hmm. ban Sénégal lan nekk. xale yi jigéen ñi fii di tëju di bége di lu ne di nga ko gis nan dem. fii ju koy changé wuñ ko di nga gis yeneen yu gën a pire yi. Mhm. lu na waar en tout cas euh, li ñu xam ne mooy nag ñeent ndaw yi nga xamante ni ñoom lañ jàpp ñu doon semé pagaay di toj ay ay ay ambulance ak auto sapeur pompier ñooña moom jamono yi tama ëpp leen ni buum. jàmm gën. <laughs> ji dañuy dem ba États-Unis ndax temps yi foofu am na coow ak euh, euh, noir américain boobu nga xamante ni dafa ñàkk bakkanam te benn policier. interpellé woon ko. waaw. bon xaw ko xaw koo bon def yoo xamante ni c'est un peu sauvage ba moom mu ñàkk ci bakkanam waaye euh, li nga xamante ni moo ci mujj ci wàllum information mooy policier bi limogé nañ ko non seulement mooy mais ki nga xamante ni mooy soxnaam daf ko ñaan bakkan daf ko ñaan baatam. ah euh, ñu fàttali ni ki nga xamante ni moom la ñu faat moom mu ngi tudd George Floyd nekk noir américain nekkoon foofu ca ca États-Unis donc mujjee ñàkk bakkanam jamono yëpp sax États-Unis euh, ay émeute dafa am ndax nit ñi dañuy génn rawatina noir yi di manifester seen colère ndax nee na ñu ngi leen di bëgg a jeexal. américain blanc. du mës a àdduna du mës neex ba mu bëgg américain noir. c'est Covid bi nga xamante ni moo dugg États-Unis bañ na ko ba bu ñuy faj sax. Mhm. ñi nga xamante ni euh, ñoom la Covid bi jàpp noir américain yi. ñoom la ñuy mujjee lijjanti. Mhm. blanc yi la ñuy tal ba pare soo koy tal noir américain yi bu mu demee ba mu ëpp leen doole dañuy teg noir américain yi fële di lijjanti blanc yi. Mhm. mooy li femme bi wax. waaw c'est ça. jeex na tontu. en tout cas doy na waar moom nag euh, moom policier boobu di wuyoo ci turu donc euh, Derek Chauvin soxnaam nekkoon fi ay jamono Miss gagnante bu sota moom nag instant yi ñaan na ko baat kon parce que nee na ko li nga def moom munu koo garder ci li nga xamante ni mooy conscience am te ay mbokkam sax dañu dem ba di ko ci donc euh, ŋàñña di ko ci won ginnaaw moo tax instant yi ñaan na ko baat fàttali ni kon jamono yi état États-Unis mbir moomu jur na fa lool coow ah, ba sax euh, ñu bëri dañuy génn di manifester ñoom li ñuy réclamer mooy justice naam sax policier ba moom wàññee wàccee nañ ko limogé ko génnee ko carrément ci police ba ñu ñëwaat fii dañ ko war tëj à vie En tout cas, je pense bien que la police, euh, la justice va trancher concernant cette affaire ñëwaat fii ci Sénégal terminé ak euh, Waly Ballago Seck moom nag euh, jox na comme addiya en guise de addiya à Serigne Mountakha limousine de luxe boo xamante ni bakk na na lool xale faramaareen bi defati na de ji. si def la dëkk booy boobu booy wax baax baaxam doo fi jóge Mimi. Mm-hmm. na ko yàlla lafal cat rek may ko mm-hmm. gudd fan ak wér rek. macha allah jàmbaar la. jàmbaar kooku lu baax rek lay am. wallaahi. d'accord waaw nañ ko ñaanal rek. ñu jeexalee ak Jahman euh, Express moom tamit defati na ndax xale bi nag xale Jurbel bi nag génneeti na son tuddee ko sekkuñ bàyyante et en ce moment ça fait beaucoup tabac. Jahman moom daanaan la jamono bi mi ngi mi ngi bu baax a baax ak euh, genre bidi muy tegu wala bidi yeeg euh, trap mbalax yeeg yooyu ah moom de day génne bala balaa 24 heures mu am ay 2 millions de vues 3 en tout cas gars yi sopp nañ ko trop te moom it yàlla na ko yàlla lafal cat rek mais mi ngi si yoon de. ndaanaan la de. sax incha allah semaine prochaine bu bu bu programme changé wul ñu am ko ci suñu plateau parce que on est en train de démarcher une émission avec lui ji xam naa sur ce la ñuy tàggoo suñu ay mbokk auditeurs depuis 16 heures on était ensemble ma jox la nga tàggoo. waaw dara euh, rendez vous lundi Galsen Power 14h 16h. Euh, samedi prochain incha allah comme ni ko mi Mimi waxee peut-être ñu dalal fi jaamaan seen émission Rewmi People di leen waat ak lépp luñ fi wax lu ñagas man la lu si rafet suñu borom la di jégaluwaat ñëpp jaajëf. <laughs> jaajëf kon amis auditeurs dañuy dem ba beneen yoon ñu toog fi ak beneen ak beneen saar wala ñuy waxtaanee lu jëm ci wàllu people.